Ndeysaan. ki mooy Sokh. Ah, Sokh 2 Ibrahima Kaay. Sokh 2. tey bis bi mu laaj Sokh. loo xam ne loo xam ne. non. saa yi rek. mais confiance confiance moom mel noonu quoi wóolu suñu mbër gëm ne bu arbitre sifflé mu daan ko bu gaaw ñu dem suñu yoon quoi. waaw waaw incha allah. waaw waaw waaw. waaw sant yàlla rek. lépp lu ñuy séntu daal su lu baax su lu neex waaw mu ngi si moom quoi te tey moom wax dëgg yàlla moom xalaatuma dara lu négatif. waaw lu positif rek laa xalaat si bés bi te incha allah dañuy daanu sooba yàlla. Franc yaa ko gën a xam. yaa ko gën a soog xam soog ndax bari na foo xamante ne. laale ngeen fa wala daan ngeen ànd lan nga gën a mën a xam ci moom. non wax dëgg yàlla nag Franc xamante nañ nii rek si koñ bi nag. ndax ñoo bokkoon benn koñ bi ñu doon dëkk. mais mosuñu laale mosuñu ànd man ak moom daawu leen fréquenté. non non non daawuñu fréquenté daawuñu fréquenté wax dëgg yàlla. moom nee na rakk soq laa doon àndal. non c'est que loolu ay waxu mbër rek. moom moom ba mu waxee loolu moom maanaam moom waroon na xoolaat boppam sax. ndax xam nga comme tey jii parfois ngay wax benn wax boo xam mu leeral li ngay wax du dëgg ba pare yaa ngi koy wax man sama yaay ba mu gisee loolu dafa ma doon laaj kat kii wax nii kan la mu ne suñu kër la doon fréquenté sama yaay ñëw na ma kii kan la quoi affaire yooyu comme baram nga ndax maa ma ñi ma doon àndal ñëpp sama yaay da doon xam comme su waxee loolu moom dina jaaxal sama yaay loolu tax mu ñëw maire bi di ko di ma laaj loolu quoi exemple mm. mais jàppee ma ko dara ndax waxu mbër la xale-xale lu mënul tee nekk ma mag comprendre nga te say at moom bu yokkul du mos a wàññeeku waaw loolu nag laa koy wax di nga wax moom champion la xam nga ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Modou Lo Papa Sow Goro Sock ñëpp ñoo xamante ni waa parcelle lañ nee na 1000 pour cent la ñu woote yéen 200 pour cent ngeen woote mais ñoom 1000 pour cent la woote ku nekk ak sa gis-gis rek ñoom loolu lañ gis quoi mais ñun suñ 200 pour cent doy nañu wax dëgg yàlla te ñun xeebuñ suñuy mbëri mag am Eumeu Sène Boy Niang ak suñu papa yi am waaw te xeebuñ nag benn yoon nag lépp lu war si combat ko ba mu di ñaan yàlla defal ndam bu seddu guy. man heure la nar a génn rek génn incha allah mais ñu war daal dinañ ko def bu soobee yàlla. dafa ñu gis fii mooy teel a ndugg marché teel a taal teel a sóor teel a yàq parce que soq mii ma gis daa ni 15 heures dina ko fekk. non ñun te la ndax te añi parewul sax dañ ko fiy bàyyi dem suñu yoon añ teewuñu fi li ñuy def tegu si yoon bi te tey la ñuy xam maanaam soq soq soq mooy kan tey la ñuy xam soq mooy kan Franc nee na moom su daanee soq na suñu ponkal yi taxaw Modou Lo mi ragal Ama ni bañ a bëre ak moom su paree xam nga dafa ragal Ama nan may sa soq Papa Sow moom mooy loolu moom grand bu ñu respecté la waaw moom moom kenn du wax naka su dul noonu si moom quoi ndax moom dafa yar boppam respecté boppam moo tax kenn mënu koo yab daal waaw moo tax loolu moom du ma si wax dara mais ay Modou Lo